C'est bon, hein? C'est bon, hein? Ne vous Euh, Mbaye Ngom mandataire Serigne Mboup waaw tey di sant yàlla xam ngeen ni euh, njëkkoon nañu déposé suñu dossier de parrainage yi déposé woon le maximum muy cinquante huit mille neuf cent soixante quinze ci cinquante huit mille yi ñu amoon ci vingt sept mille yoo xam ne dafa nekkoon ay doublons externes ñu validé woon ci trente un mille sept cent cinquante deux amoon uniquement cent seize rejets li ñu may chance tey mooy bëriwuñu woon ay rejets yàlla def yàlla def ñu indiwaat tey vingt six mille cinq cent trente et un euh, parrain ci vingt six mille yi bi ñu ko contrôlé gis nañ ni vingt et mille yëpp baax na donc vingt et un mille et quelques plus trente et un mille et quelques yu njëkkoon validé mu nekk cinquante trois mille euh, yoo xam ne parrain euh, validé nañ ko te ñu ngi ñu doon laaj quarante quatre mille donc dépassé nañ plus de neuf mille euh, parrains yoo xamante ne c' est validé aujourd'hui le parrainage de Serigne Mboup yàlla def na ci jàmm alhamdulilah validé nañ ko validé nañ aussi dix régions bu njëkkoon ñu ngi validé woon six régions tey bi ñu dugalaate am na yeneen quatre régions yoo xam ne validé nañ ko muy Kaffrine ci la bokk Fatick ci la bokk Kolda ak Kédougou euh, yàlla def dañu fusionné su suñu réserve tey mën nañ ni seen région ñu doon laal laaj dépassé nañ ko ñu ngi am euh, dix régions. ndax da bokk ci mandataires yi ŋàññi euh, système parrainage bi. bon sistem de parrainage bi am na ñu koy ŋàññi am na ñu ko dul ŋàññi bon. c'est compliqué pour tout le monde ah parce que soo xoolee ñun euh, bi njëkkee déposé 116 rejets la ñu amoon donc mun nañ ni su fekkoon fekkoonte ni jiitu nañu euh, suñu parrainage day jàll de le début donc contrôle bi euh, awma ci problème tirage bi tenter chance la lu toll nii. Euh, élection présidentielle ñu dem ci tirage je pense war nañ mën a xoolaat ce système euh, de de tirage mais parrainage moom ça se fait euh, ci àdduna bi yëpp dañ koy def donc parrainage pour man dañ ko war a def pour quand même au moins sélectionner les candidats mais système bi la ñu war a xoolaat. bon fichier bi mënuma ci wax lu bëri comme wax naa leen man 116 rejet kese laa am. donc ça veut dire que man quatre euh, euh, parrains yi ma dugal ñu ngi ci fichier bi baax na ci deuxième bi aussi bi ñu dugalaate ci vingt six mille ñu ngi am euh, mille neuf cent rejets Euh, du ma ne euh, nekkuñ ci fichier bi mën na nekk des erreurs d'écriture ah non on est toujours de bonne foi mën na nekk erreur mais bon man personnellement mënu ma wax ci fichier bi parce que gisuma ci problème am au niveau am na xarit ci anam ba nga xam ne traité nañ leen mhm. bon très très euh, très honnêtement man li ma ci gis wax dëgg yàlla gisuma ci souci. Euh, particulier euh, di féliciter tout d'abord les gendarmes yi nga xam ne ñoo fi nekk ils sont très ouverts accueillants euh, di jàppale nit ñi au niveau de la commission aussi man en tout cas man personnellement traité nañ ma ci traitement bu baax te gisuma fa ci li ma fekk ñoom dañ nekk di def seen liggéey commission la bokkuñu sax fu ñu nekkee je man boog personnellement gisuma ci benn problème très bien merci beaucoup mbay Ngom mandataire Serigne Mboup Euh, ce matin, nous avons euh, fait le contrôle de régularisation de nos parrains, sachant qu'il y a une semaine, euh, Boub avait déjà déposé euh, les parrainages au contrôle qui est un maximum de 58 975. Euh, sur le parrainage déposé, nous avions validé en première euh, phase En première phase, 31 752. Et sur les 31 752, il y avait, euh, sur les 58 000 déposés, il n'y avait que 116 rejets et 27 107 euh, doublons. Euh, Aujourd'hui, nous avons déposé 26 531 euh, nouveaux parrainages pour pouvoir régulariser ces doublons et Dieu a fait qu'on a validé les 27, 21 000 parrainages et quelques. Ajouté aux 31 000 premiers, ça nous fait 53 000 parrains qui sont validés. Pour nous, c'est une, une, bonne chose, c'est une excellente chose. Euh, D'autre côté aussi, nous avons validé euh, 10 régions. En premier lieu, nous avions déjà validé 6 régions et cette fois-ci, il y en a 4 qui s'y rajoutent, à savoir Kafrine, Kédougou, euh, Kolda, mais aussi euh, Kafrine, Kédougou, euh, Kolda et j'ai oublié le, la, le, le, la 10 région. et Fatick. Le système de parrainage, euh, nous personnellement, on n'a pas de problème particulier là-dessus. ce qu'on peut souligner, c'est juste euh, euh, le système qu'on fait, surtout le tirage euh, à l'élection présidentielle, qui est quand même la magistrature suprême, et de partir sur du, sur du tirage. Pour nous, il faudra revoir le système, peut-être le tirage en amont avant de, de déposer ou autre chose. Mais je pense que le système à revoir. Maintenir le parrainage, mais revoir le système. Merci beaucoup. Très bien. Euh, mandataire ki nga xam ni moom moo di euh, Serigne Mboup euh, kon moom aussi tamit jàll na li nga xam ni mooy état ñu di kon mën nañu wax soit léegi benn candidat bu ñu nekk la ñu rëkkale bi mu nekk ki nga xam ni moom moo di maître El Hadji Ousseynou Euh, Rose Wardini dafa daal di euh, jàll euh, ki nga di Idrissa Seck dafa jàll kii la di Serigne kon jamono ji ni kii la di Pape Djibril Fall PDF les serviteurs la ñu war li nga xam ni moom moo di son dossier de candidat à la candidature sànq ñu ngi leen doon jàngal moom Thierno Alassane Sall ni ki tey ji daal di nay déposé kon benn. Euh, daan nay euh, déposé auprès du conseil constitutionnel euh, des réclamations et un recours Euh, ce dernier visait à constater euh, la rupture d'égalité des candidats invités à régulariser la liste euh, de leur parrainage pour cause de doublon. En effet, en fixant à l'ensemble des candidats concernés par ce second tour le même jour, le lundi 8 janvier 2024, pour régulariser les doublons constatés dans leur liste de parrainage, le Conseil constitutionnel rompt de façon flagrante l'égalité entre les candidats. Ainsi, les premiers contrôles ayant été effectué le samedi 30 euh, décembre 2023. Les candidats de cette première lot ont eu 8 jours Euh, pour préparer la régularisation tandis que ceux qui ont subi le contrôle en dernier lieu euh, le vendredi 4 janvier 2024 ne disposaient que euh, de trois jours ci li nga xam ne jotagul naa ko liir moom muy wax ni daal dinay Thierno Alassane Sall moom daal dinay déposé fii ci wetu conseil constitutionnel yenn ci ay réclamation ndax dafa gis ni la fait que ñu boole candidat yi yàlla second tour yëpp ci benn bis loolu dañu respecté lu jëm ci wàllu respecté lu jëm ci wàllu yamo yamale gi ndaxte ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkkoon a jàll euh, état bu parrainage bi ñoom ñoo ëppale ay fan yoo xam ni am nañu ko pour préparer euh, second tour bi euh, ak ñi nga ni ñoom ñoo mujjee jàll parce que boo njëkkee jàll ki nga xam ne dafa ñëw deux jours après da nga am deux jours si moom pour a préparer li nga xam ne moo di sa état bu second tour kon moom ni vraiment ni ñu respecté ordre de bi noonu la ñu waroon a respecté benn par benn nga xam ñoo njëkkoon a jàll ñu jàppal leen seen bopp ñi si topp bopp ñu jàpp leen seen jouru bopp ainsi ainsi de suite ba ñëpp yem au même pied lone la ko daal di euh, xamle moom mi nga xam ni moom moo di euh, Thierno euh, Alassane Sall mu ni en dépit de cette rupture d'égalité flagrante du fait du du seul conseil constitutionnel ce dernier passe outre le droit naturel de disposer de recours et poursuit en faisant fi des réclamations et recours disposés l'un des piliers essentiels d'une saine et transparente compétition et violée au vu et au su de tous. il n'est pas nécessaire d'être un juriste pour s'en euh, par euh, de tels actes que l'opinion juge le conseil constitutionnel et les charges euh, qui le composent moom nag jàpp na ne vraiment li nga xam ni jot na fi am mu nekk loo xam ni ñàkk a gu gu ci am gu jéggi dayo la jëru sax nga nekk juriste ak yu ni mel pour xam ko mais boo xoolee ak say gët rek di nga xam ni lii ak ñàkk a am na ci moo tax Sénégalais yi di am yenn gët yi yenn xoolee ni ci ñi nga xam ni ñoom ñoo di waa conseil constitutionnel ak sept yi nga xam ni juge. Mouni, ces juges expose le Sénégal en donnant à voir à tout euh, que les principes les plus élémentaires du droit n'ont aucune considération à leurs yeux, car si on ne peut pas on ne peut s'en remettre à la justice. L'ultime recours, les institutions elles-mêmes euh, sont menacées comme euh, le démontrent les derniers les derniers événements violents dans notre pays yàlla na ci yàlla musaat moom mu jàpp ni euh, lii nag en tout cas dafay exposer Sénégal da koy dugal euh, ci mën na ko dugal ci moment yoo xamante ni si nii Euh, moment yu jéggi daayu la euh, mi ngi fàttali sax événement yi fi xam ne jotoon na fi euh, jaar fii la nga xam ni moom moo di ci réewub Sénégal moom nag moom Thierno Alassane Sall moom moo daal di bind bi la bataaxal fii la ci conseil concerné mu nekk ay réclamation maanaam dafa ñëw pour daal di clamer yenn ci ay ñàkk yamale ñàkk tollale boo xamante ne si am na ci candidat à la candidature yi nga xam ne ñoom ñoo jàll ci li ñeel wàllum ñaareelu tour bi kon ñu dellu siwaat ci mandataire bi nga xam ne jot na fi jàll sànq muy mandataire u ki la moom